parce que bu ñu ko stoppé wul c'est-à-dire si on veut continuer à politiser l'administration mooy que lii daloon APR mooy dal Pastef a mooy ñu ñu promouvoir wul dans l'administration ñooy génn dem kaasi ji dem fenn ñëw seet si ma wala seeti beneen leader donc il faut mettre une politique vraiment de de de de, de pas de perfection qu'est-ce que je veux dire une politique de de de de leadership cest à il faut que mu nekk vraiment euh, une politique de mérite. waaw mami mérité na ko dañ ko koy jox. mu bokk Pastef mu bokk fële xam diw ñàkk xam diw dañ ko koy jox parce que elle a le de l'emploi voilà sa c'est dans l'administration maintenant les postes nominatifs ay ministres ay DG ils sont libres de mettre qui ils veulent mais au sein de l'administration au sein de ce qu'on appelle les hauts de l'État il faut ñu valoriser ko jox ko ceux qui suñ ko buggee def affaire wu xaritoo copain copain copain euh, je dis que. mais est que ñu nekkoon affaire ñëpp war nañ leen a seppi nag ci mbir yi est-ce que am tamit amul tamit ñoo xamante ne ñoom baax nañ mën nañ li ñuy def ñu maintenir leen ci seen ay post tey bu ñu falee euh, ki nga xam ni actuellement moo jiitee euh, lekk wuutu kii di Pape Demba bi tey dañ ne mburu foofu ko fariñ ah mais ah tey bu amee les compétences yi nga xam ni moom la mën a yoree loole ndax lépp rek lañu war a dindi ci ñoom. xam nga li tardel Wade yàqal Wade. voilà bi mu egsee 2000. il a voulu mettre dans la tête des Sénégal mu ngi soog a juddu. Mhm. moom bi mu egsee bëgg a raser faire table rase surtout. Mhm. d'ailleurs moo indi la désarticulation de l'administration. avec cette floraison d'agence nangam sangam pour contourner les ministères. Mhm. moo ñu jural musiba bii. Euh, APR ñëw profiter du système Pastef est en train de profiter du système en maintenant les agences amuñu seen les gens n'ont pas droit d'exister mënuñu am des ministères am des directions euh, nationales bëgg ci teg à côté des agences yi nga xam ne wax fa dëgg yàlla c'est excuse-moi c'est c'est c'est une gestion de de de la clientèle politique gëwuma loolu mais au sein de l'APR je connais de personne de valeur ay nit ñu baax ñi nga xam ne 12 ans yi fi Macky Sall def mosoo leen dégg te doo leen mos a dégg ci scandale et c'est des gens qui à un moment mais on tapait sur la table moo tax on les à l'écart yaa y am na ci au sein de l'APR au sein du PDS au sein du PS am na fi en tout cas pour lu nga xam ne moo intérêt mooy intérêt Sénégal mooy li nga xam ne moo mën a defar Sénégal yi moo mën a defar Sénégal la main d'œuvre on peut la trouver partout il faut pas mettre en avant je encore une fois su dee ci wàllu nomination yi ministre ay DG yi moi j'ai pas de problème par rapport à ça parce que ñoom ñoo gagné effectivement ils ont leur cadre ils ont leur militant war na leen récompenser c'est normal mais nag ci justice xam naa ne am nga ay attentes parce que def nañ lël ñu ngi xaar foofu it bala bi jaar fa am nañu jàpp ne moom waratuñ leen gis ci euh, ñu jiite woon wéy ci yow jàpp nga ne soppeeku bu mag bi ci justice war na am ñu mu yóbbu. bon man man lu coup bale de la justice. Oui. Euh, ah. à l'état actuel des chose bu ñu changéwul wul fondamentalement mhm. le fonctionnement c'est-à-dire l'administration de la justice ku ñu fi munti teg lañu ñu defloo ñii bu leen ko buñ ko ko defloo mu def ko. waaw hmm. c'est-à-dire bu ñu changé wul l'administration de de de la justice changer le fonctionnement comment ça fonctionne comment euh, les ordres sont euh, excuse-moi les les instructions sont reçues et tout ça bu ñu ko changé wul ku ñu fi munti nommer euh, la muy jéem a def c'est d'essayer de plaire au a wax ñu teggi le chef de l'État ci non non non moi je suis pas pour que président de la république génn ci. conseil supérieur de la non non je suis pas du tout pour. Mhm. pour man il doit rester. Mhm. parce que tamit quoi qu'on dise président de la république moom la ñu fal les juges ne sont pas élus. si on va vers un système où les juges sont élus il y a pas de problème mais là c'est le président qui est élu c'est le président qui nomme à tous les postes civils et militaires donc yoon la mu nekk fa. bàyyi ci. am ci gët mais euh, ce que je veux dire. cest à la relation de dépendance entre le parquet et la tutelle il faut que ñu aménager ko. ba nga xam ne plus jamais benn ministre de la justice du toog fële eh Paa Ousmane euh, damal jëlal ma Pape Sané ça il faut qu'on bannisse ça beneen bi mooy on a un arsenal. de texte répressif mais yi nga xam ne même du temps médiéval amul woon il faut que ñu dindi ko il faut qu'on redonne aux juges les moyens légaux de pouvoir dire ah non man Pape Sané mii xool naa xool dañ koy toppee du ko ci du ma ko ci tëj kaso naa ko bàyyi mu dem liggéey liggéeyam su ma ko soxlaa woo ko il faut qu'on donne redonne aux juges ces moyens là mooy maanaam rocci c'est pouvoir exorbitant du procureur de la République bi nga xam ne bu décidé ne Pape Sané day dem kaso day dem kaso kenn mënu ci dara même bu dee daful day dem kaso parce que man procureur j'ai décidé il faut qu'on qu'on qu'on ci nga xam ne dafa laale mbiru Ousmane Sonko nag. ñooñu dañoo war a dem. tu sais moi je dis une chose il faut commettre l'erreur mm-hmm. à partir d'expériences personnelles. oui muy usman Sonko muy Diomaye muy man. muy keneen a i keneen à partir d'expérience personnelle qu'on veuille reformuler ou refaire la justice ça va être extrêmement dangereux dangereux et dérapant man expérience bu ma am ak un juge qu'est-ce que ça pèse sur le fonctionnement de la justice sénégalaise est-ce que je dois prendre mon expérience moi parce que un juge condamné pour que ma ne non justice bi yëpp dama koy changer non condition yooyu nga xam ne moom la ñu créé woon autour de ce juge pour mu condamner ma wala pour mu tëj ma kaso c'est ces conditions là qu'il faut xaw ma ndax yaa ngi comprendre oui. Mm-hmm. c'est ces conditions là qu'il faut démolir revoir encore on laisse les mêmes on laisse les mêmes textes on prend n'importe quel magistrat on l'amène ici on lui demande de faire ça il fera ça. wuute naa ngi jàpp ne moom Bassirou Serigne Bassirou yooyu ba tey wartu mën a des OFNAC. pour ne citer que cela. waaw euh, moi je suis d'accord que Serigne Bassirou Gueye soit relevé de l'OFNAC. Mm parce que il a été procureur de la République ñu jox ko ay rapport OFNAC mu ne du ko traité. donc ce gars ne peut ne peut pas lutter contre la corruption. pour moi on le bi muy nekk procureur de la République dañ ko jox ay rapport ne ko Pape Sané moo def lii léegi lii mu war mu war Euh, doon joxe une suite à ces rapports là mu lànk sax wax na ko ba mu génn mu lànk jëlaat rapport yi delloo ko OFNAC mhm. waaw kooku ñu ne ma moom nañu teg fii pour mu lutter contre la corruption il fera rien du tout d'accord il faut le virer d'accord merci beaucoup euh, euh Pape Sané Pape Ousmane boo waxaatee génn plateau bi yow li va jàll ay ci ñu daal di ñëw ci euh, ponk bu nju mujj bi nga xam ne moom la desaat na beneen ponk waaw waaw bii la rek Pape Ousmane moo mun